alhamdulillah Assalamualaikum, Warahmatullahi taala Wabarakatuh. barakatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi am na teraanga ju ko yàlla defal ci koor bésu koor boo xam ne jusqu'ici pour man unique maa ngi seet jamono mais gisaatu ko ma ko man bu neexee yàlla mu may la may ko ñëpp bu neexee dañu ne dañu ne cëpp xaaxira ci koor mun naa la wax bés ba dat ba ca koor ga ndax mi ngi ci suma rëxiwaat waaye nag ma ci xóotal eh, julli jumaa volontairement mu ne nañ julli jaamiu Azhar ñépp ko xam mu siiw am na junne at ñu dem mu toog ba mu mu gis mu dégg Moustapha Ismaïl di jàng ci oto ngeen baar ma li may dal dal terewul mu jóg dem fo fu ko jege doon ko ba dellu lu may noddu imaamu jaamiul azhar booba tudd Muhammadul Ghazali yal na ko yàlla Riyad la faatoo daanaka kenn doxoon suñu diggante maanaam ci benn séminaire

ambulance am fu mu jaar ci salle boobu kër kër kër kër dañu yóbbu hôpital mu gaañ xam kooku mën nga wax ne chahid bon mais waxuma loolu kooku na moo yow sëgg bàyyi ngi nii maa ngi nii mu ñëwee ko ne kon dégguma li mu wax ndekete daf ko ne dañu doon ñaan tey nga doon xatib bi yéeg minbar bi xutbaal ñu imaam bi yu jële ci mihrab bi ay détails waaye xam nga yaa ngi julli jumaa rek yóbbu ne yooyu yëpp mm-hmm. fay de tekk mais tekk googu Razali xamu man bu mu ko laalee moom. mu ne ko mu gaawantu ne ko su fekkee dama laa bett nga xaar ajuma ji ñëw ala kulli xaalin daal bëgg nañ nga jiitu baax na baax mu jox waa ji ndigal mu dafa fekk mimbaru ëssël bu gudd bi dañ ko doon dafa am ko doon defar am ay kii beneen buñ bu nekk fii ci la yéeg bàyyi xutba leen ci weeru ko wax na daan wax mais wax na yokk na ci yokk na ci parce que ci xutba ak ñaareel bàyyi duy soppeeku enkañ keroog soppi na ndax wax na ne waa jamono ji yàgg ba tey maa ngi dégg ngeen di waxtaanee al qawmiyatul arabiyatu le nationalisme arabe comme réaction xam nga arab arab ba am ñu naan sax nekkoon nañu arab bi ñuy laata nekk jullit mu naqaroon bàyyi lool ci ki mu ko mosoon diggi mu ne ko booba day la ngeen nekkoon du lu ñuy tiitaru waxu ko ci minbar bi loolu keneen la ko waxoon mu ne ko loolu ngay tiitaroo moom la alxuraan tënk ci wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubiin képp li ngeen di tiitaroo yëpp gannaaw gi gannaaw bu Muhammad ibn Abdullahi ñëwee alayhi salaatu wasalaam ci minbar bi nag mu ne leen xawmeel arabiya bi Jean Abdou Nasser iwote manku ci deugural waye sharta an sharta an kuma nahu dak mo ko no bi al bi sharti an no sharta an تكون خطوة نحو قومية أو قومية أوسع منها وهي القومية الإسلامية. داكو ناس ينبغي تشنا سيناس بغارة باتا هو su ma koy dëgëral tey pour mu nekk pas bu ñu yóbbu ci xawmeel islaamiyee la eh. xóot ba ba pare kon nag loolu koor la woon muy tukki te mi ngi or ñu bett koo xóot ba jumaa ci xóot koo xam ne ñu ne kenn mus fa jiit lu may ko fa dëkk jàngee teraan yooyu laa wax na mm-hmm. ñu ngi ciy sant yàlla yi dara yéemu dafa ne bu nekk day ci jàkk jumaa yi fàttaliku nga sëlëfu saale wala suñ gan gii fàttali nañu loo xam ne ñun ñun xutbakat yi dañ koy faral di fàtte mooy nekkee dëgg la fasaan waaw fasaan ci affaire làmmiñ waaye nekkee fasaan xol ci lañ war a commencé l'éloquence du keroog la ko alors nesli fa nag xalifa bi doon laaj waaja naan ko koo bàyyi makka muy jiite juddi ñe koo bàyyi misra mu jiite juddi koo bàyyi iraq mu koo bàyyi dimash fu mu ko la wax rek mu ne ko diw fay jiite dama koy gàttal mu ne ko mawlaa la wala arab la mu ne ko ah mawlaa la du arab de <laughs> mboolem awasim yi ba makka ak medina lu may kóopa atam hmm. moom la fa Ibrahima ne nekkoon. ci hmm. arab mu ne koo arab la mu ne ko xaw ngaa doon sama xol bi xanaa daañu dem bon ba nga xam ne kon mawaal yi maanaam mbayala yi. Hmm. nit ñi nga xam ne duñu araab ci cosaan dañu leen di xutbal ci kaw min bari di leen ñaanal mu ne ko ah buur mbir mbiram diine la de. Hmm. comme ni nga ko waxee wax rek ku am xam-xam jub yaa war a jiite de. nga xam ne déduction faite mooy kii ñu doon xutbal làmbatu. c'est ça am xam Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey fay baay bi si ji barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du bi si ji barahama leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV